yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baada sayidina wa nabina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa sallama tasliman mbokki réew mi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar di dellusiwaat ak yéen ci jotaay bi ñu baaxu amal ak yéen bi koor gi dooree ak léegi ñu waxtaan ci li nga xamante ni moom la koor gi làmboo yi ak tey ñu fas yéene nak tey jii indi leen ab jukki boo xamante ni ñu ngi koy jëmale ci laylatul xadr muy bis boo xamante ni alquran indi na ko yeneen bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci ci xadis borom xam-xam yëpp bokk nañ ci daje ci ngëneel yu màgg yoo xamante ni làmboo na ko moom laylatul xadr ndax mooy bis bi nga xamante ni ci la sunu borom tànn ngir wàcce ci alquran ndax moo wax ne inna anzalnaahu fi laylatil xadri wama adraka ma laylatul xadri laylatul xadri xayrun min alfi shahri bis bi nga xamante ni si la suñu borom tànn wàcce ci alxuraan gënal ko ci junni weer comme gënal na ko ci junni weer nag bis la boo xamante ni bu tedd la bis la bu ñu barkeel ndax ma wax ne inna anzalnaahu fii laylatil mubaraka guddi googu la ñu fas yéene ànd def ci ab gëstu boo xamante ni ab tënk lay doon ci waxinu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax yonent bi moo wax ne bis la boo xamante ni sunu borom dana ci jéggal ay jaamam bis la boo xamante ni tam sunu borom ci lay soppi dogal yi nga xamante ni moo war a wàcc ci at mi ndox ci jaam ñi ndax moo wax ne fiihaa yufraxu kullu amrin hakim bis la boo xamante ni dogal yi ci la ko sunu borom di tànn waaye bis la boo xam ne itam sunu borom dana ci wàcce ay malaakaam tanazzalul malaaikatu war ruuxu fiihaa dana ci wàcce malaaka yi ñuy wër pàkki suuf yi fépp foo xamante ni jaam bi teg na fa tànkam wax nañ day mel ne malaakaa ngi fa taxaw seydina jibril alayhi salaam ànd ak ñoom ñuy wër ci jaam ñi di sotti yiwi sunu borom ba noppi di ñaan yàlla mu nangul jaam ñi seen seenu ñaan bis la boo xamante ne bis buñ mat a jéggaloo yàlla sunu borom la ndax yonent bi wax na ne képp koo xamante ni dundal na ko ci jéggalu yàlla sunu borom dana ko jéggal man xaama laylatal xadri imaanan waxti saaban xufira lahu maa taxaddama min zanbi imaam Buxaari indi na ko imaam Muslim it dëppoo na ci ak moom ñu wax ne képp koo xam ne dundal na bisub laylatul xadar sunu borom dana ko jéggal ay bàkkaaram naka noonu itam la ñuy xamlee ne bisub jéggal la kon kenn ku nekk war naa góor góorlu jéggal ci yàlla sunu borom ay bakkaaram ak i njuumteem ndax yàlla wax na ci alxuraan ne laa taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaxfiru zunuba jamihan jaam bi warta def ay njuumte wala ay bakkaar yu war a tax mu jàpp ne yàlla sunu borom dootu ko jéggal booleen loo xamante ni def na ko ci ay njuumte rek bu jéggaloo yàlla ko nam ko war a defee amaana sunu borom dana ko jéggal noon yi nag la amee kenn ku laaj yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko lan moo gën a baax a def ci guddi googu gannaaw taxaw ci di julli mu ne ko baax na ci ñaan ci yàlla sunu borom waaye baax na ci jéggalu daal di koy wax ne ko boo ci bëggee ñaan yàlla mën ngay wax ne allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yow yàlla yàlla na nga ma jéggal samay bakkaar moom sunu borom mi nga xamante ne mu aji jéggale su ko jaam bi jéggaloo sunu borom dana ko jéggal ndax ku ne xam na ne lu baax du yomb yenent bi nag xamaloon nañu ne bis boobu dañ koy lëm ci weer wi waaye nag dénkaane woon na ne képp ku koy seet na ko seet ci xaaj bu mujj bi fal tamisuha fil witri la wax min al ashri min al ashril awaaxir képp koo xam ne nga ko seet na ko seet ci xaaj bu mujj bi naka noonu it lanu sunu sëriñ xaadima sol mi nga xamante ni lu jëriñ jaam ñi rek moo ko ñor defal ñu ab tënk boo xamante ni daf caa dajale nettali borom xam-xam yi ak ñi nga xamante ni ñooy way jub yi boo demee ci tënk ba sëriñ baa ngi wax ne doo doonaka yaaman laylatal xadri taroomu nazman ata fiha fimaha fimahaaka ahlul ulum yow mi nga xamante ni yaay sàkku laylatul xadar defal nañ la ab tënk boo xamante ni def nañ ko ci way te borom xam-xam yëpp dëppoo ci mu wax ne xat axbaru bi annaha takunu fi nisfihi l awaaxiri sabin nee na bokk nañu dëppoo ñoom borom xam-xam yi nettali ne bu fekkente ne da ngay seet laylatul xadar ci weeru koor bu fekkee da um bisub altine na nga xam ne laylatul xadar boobu yi mu ngi daal di tombee ak ñaar fukkeelu fan ak juróom-ñeent bu fekkee bisub altine nga um daane waaye bu fekkente ne itam da ngaa um bisub talaata na nga xam ne laylatul xadar mu ngi tolloo ak ñaar fukki fan ak juróom bu fekkee itam da ngaa um ci bis bi nga xamante ni mooy bisu àllarba laylatul xadr mu ngi tolloo ak fukki fan ak juróom-ñaar mooy dix-septième jour mu ne bu fekkee itam da ngaa um bisub alxames nga xam ne ci nga um koor na nga xam ne laylatul xadr mu ngi tolloo ak vingt-troisième mooy ñaar fukki fan ak ñett mu ngi xamal itam ne bu fekkente ni da ngeen a woor bisu ajjuma seen laylatul xadr mu ngi tolloo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent mooy vingt-neuvième jour bu fekkee itam ñu ngi woor ci bis bi nga xamante ni moom mooy tolloo ak bisu samedi laylatu xadar boobu yi dafay tombe ak ñaar fukki fan ak ñaar bu fekkee itam dañoo um ci bis bi nga xamante ni mooy bisub dimaas bu boobaa laylatu xadar bu ngi tolloo ak ñaar fukki fan ak juróom ñaar noonu yi la sëriñ bi leerale leeral boobu nag sëñ wax na ne ñi nga xamante ni ñoo doonoon borom xam-xam tey way jub ñëpp ànd nañ ci noonu yi lañ ci àndee wax ne itam nag laylatu xadar bu nekk day tolloo ak bisub guddi àjjuma te itam ci bis yi tool lay doon kon ren jii ñu nekk nga xamante ne ñu ngi um ci bisub dibéer mooy tolloo ak dimanche mën nañoo jàpp ne sunu laylatul xadar mu ngi doon ñaar fukki fan ak juróom-ñaar mënees na koy dundal ci yeneen bis nga xamante ni mooy bis yi ne ci xaaj mujj bi ndax ku ne xam na ne waa Mbusoobe ay mbokki sëriñ bi lañ te daawuñu juyoog moom ba lépp luñ def ci ndigalam lañ ko teg waaye ñoom ñu ngi koy ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ba noppi saxal ko ci waaye soxna may mun a mi nga xam ne itam ci njabootu ku baax ki la bokk moom it da ko daa dundal ci dàkk ci tënk bii nga xamante ni moom la sëriñ bi def kon nanu xam ne rek woor weer wi yëpp ca sàkku laytu xadar ci fan yu mujj yi moom moo ñu war waaye nag tënk bi ñu sëriñ bi jox itam ñu bàyyi ci xel bu baax a baax te gën cee góor góorlu mu doon bis boo xamante ni bis bu màgg la bis bu gën junni weer ku ko dundal ku nekk nanga xam ne dund nga 83 ans ci benn guddi yoo xamante ni daa mel ne ngay woor bëccëg yi di naafila guddi yi ba noppi di dox ci yoonu yàlla dundal gi nag ni ma ko waxee woon léegi rek yonent bi waxoon na ne di ci jéggalu yàlla suñu borom moo gën ndax bàkkaar yi jaam bi di def bëri na njuumte yi muy def diggante ak boromam te du ko yëg bëri na waaye nag mu ji ko jéggalu bis bii nag da caa gëne ndax ku ci sàkku jéggal yàlla suñu borom jéggal la ku ci sàkku yiw suñu borom defal la ko ku ci bëgg yokkate suñu borom defal la ko yonent bi nag ba ko yaa Aïcha laajee lu mu ciy def daf ko ne del wax ne allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa faafu anni dee ko wax waaye ku mënul lool itam wax nañu ne boo mënee julli geewe ci mbooloo wala nga julli fajar ci mbooloo mel nga ne ku dundal guddi gi yëpp fanaane naa fi la kon nanu xam ne bis la bu màgg boo xamante ni gën na junni weer yàlla nañu suñu borom defal tawféex dajalañ ceeg ngërëm te liñ ciy sàkk suñu borom defal ñu ko ci wasalaamaaleykum wa rahmatullah yaa xayra dayfin wa sahlan